الله أكبر الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

الله أكبر assalaamu aleykum wa inni u'iiduhaa bika wa durriyatahaa mina ash-shaytaani rajiim rabbi a'uudu bika min hamazaati ash-shayaatiin wa a'uudu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu alaa sayyidinaa Muhammad wa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliimaa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 على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء fa innahu yulaazimu ma axza wa asa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma aataakum rasulu fa xuduuh wa qaala allahu tabaraka wa taala wa man yacmal mithqaala darratin xayran yara fa tuuba liman axada ma ataa bihi rasul عليه بآله وصحبه سلام معطي السول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا wa anhaakum an fiili kulli maa lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimma yuwajjihu ilaa gayrikum al ajra walridaa walsawaaba wala tatlubu alkarama bigayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubu alizzata min gayri alasiisi almuizz بجاه عبده نبيه ورسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم ittaqi llaha xaytu kunt man kaana yuminu billahi walyowmi alaaxiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baarak anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfacu fihi cinda mumiiti maytihi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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصب إلى غيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهد الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki jullit mbokki taalibe mbokki jullit yi gannaaw ak balwaq ju feeñ ak junub akum ndokkeel te jiital ci sunu kilifa as-Seex Muhammadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasar wa xafidahu wa satar wa asaxahu wa ammar wa rahima salafahu wa gafar lahum wa likulli man aamana wa aslama wa axsana wa lam yastakbir noo ngi leen di fàttali su soor si na ci diggante weeru koor ak bisu di muurum koor mu toll ci saa te mooy ñeenti mudd ñu di ko génne ci lépp ci li ñuy dunde génne ko war na ci bépp jullit asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bii di bisu korite di bisu mag bu yàlla barkeel di yëkkati kàddu yi ci tur ak ci ndigalul alxalifati al aam li tariqatina al muridiya al seykh muhammad al muntaqa xafidahu llahu al qaadiru al muqtadir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 nan teg sun kanam waxe sunu borom ji te mooy wa qul i'malu fa sayara amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa saturadduuna ila alimi alxaybi walchahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun gannaaw bu yàlla maye doomu aadama xam-xamu xàmmee jëf-jëf ju baax ak juban bon ak kàttanu tànn li ci neex mu def dana yonente bi neel nit ñi def leen lu leen soob